Anyways.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 bu téléphonique bii di Expresso Sénégal euh, di wuyoo ci turi am tembeng di ab Ceesuwaa at yi toll ci fanweeri at ak juróom-ñeent ma ne nag soo wattuwul kaso dana doon këram ndax convoqué nañ ko te tirbinal flagrant délit bu Ndakaaru ngir mu wuyu ci njuuj njaaj gi ñu koy tuumaal am tembeng di agent commercial Expresso boobu nee ñu tamit mës nañ ko teg loxo boobu ak léegi toll na ci atu yàlla Tuuba Mbàkke ci njuuj njaaj yu ni mel <laughs> waay waay waay bàyyi leen njuuj njaaj waay na mu ko doon defee nag nee ñu sa dafa yoroon ci lu dul yoon fichier électoral a à partir de fichier électoral boobu nag la doon identifier ay clientam yi nga xam ne amuñu di carte d'identité eskay di leen dóor sa waay nag gannaaw ba ñu ko tegee loxo di ko auditionné nangu na ne moo def lu ni mel waaye nag lam ca teg mooy lu tax mu doon def lu ni mel da doon dimbali ñooñu ngir ñu am carte d'identité hey mim réew moo tax ma ne réew ma nag réew mi lu ñu bari lewul waaye du ay pexe ki lay lay rek lay rek fu mu ne nag sa waay mu ngi xaar fu wànnent di mu ki gëtëm moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax ndaw si nag li mu def ëpp na moom daal jahannam la tegal gorom bu jigéen ba noppi sàcc ay takkaayam yoo xam ne bu ñu koy xayma toll na ci juróom fukki million ndaw si mu ngi wuyoo ci Sédhiou moom nag ñu ko doon attee à la bu chambre criminelle bu ndakaaru ci wàllum sàcc boo xam ne nee ñu bi mu koy def dafa àndoon ak violence teg ci doon jëfandikoo arme ak ay fausse clé <laughs> waaye ma ne ci jigéen ndaw si nee ñu mi ngi am fanweeri at ak ñaar gannaaw bi mu sëyee ci kër goro bi lu toll ci fukki at ak ñaar na la ñu koy doog a accuser jëf ju ni mel ah moom daal nee ñu moo agressé gorom bu jigéen boobu di libanaise te it ñu ngi njort ne moo sàcc ay takkaayu gorom boobu di or jama ak yeneen yoo xam ne boo ko doon xayma toll na ci juróom fukki million ba nag soo wattuwul see juuf moomu mën nañ koo tëj giiru dundam ëpp na ëpp na ëpp na nag ñi nga xam ne nag ci yëf yooyu ñu ngi leen doon toppee ci wàllum recel muy le frères lam di em lam o lam ak alam ñoom ñu ngi yaakaar ñu acquitté leen le 19 avril ñu jëm na ci la ñuy xam fu wanent di mujjee ki gëtëm moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi mi moo gën a graaw korona la wax waa ji nag li mu def moom la tubaab di wax abii de confiance maanaam nga wóolu nit mu war la ndax ca atum 2020 dafa luwe woon benn moto ci benn waay ne mërëg moto bi dem ay dañoo mën a sàcc de waa ji def njombe loolu nag mu ngi wuyoo ci turu EF luwe woon moto bi à vingt cinq mille francs ci ki ñu naan Babacar ngir dem ca Dakar fa ñu naan Colobane jëli ay fëgg jaayam mu ngi ko luwe woon buntu kër Babacar ca Maris bi mu luwe moto bi nag nee ñu ngir nelawal Babacar ef am na ab paquet bu mu jële woon ca Mbuur daf ko bàyyi woon ci Babacar dal di jël moto bi dem Babacar toog buntu këram di ko xaar di ko xaar di ko xaar ma ne gisul picc laa wax ma ne daa yomb nag bu rek nga jox ko moto mu dem waaye nag lii bës bi mooy ci atum 2022 bi Babacar day dox di dox par hasard ba dajek ef mi ne woon may ak ne ko kirtim waaw góore waay ñoom ñaar kon kondom kondom ba biir police ba ñu yeggee police nag ef mi sàccoon moto bi li mu lay mooy gannaaw bi mu jëlee moto bi bi mu dellu see dafa fekk Babacar dem naka noonu ci la jëlee moto bi kaare ko nekk ci ay fëgg jaayam gestu gisatul moto bi ma ne ko moto bi de naawul naawul ginne yi yóbbuwuñu ko mooy li may wax rek Sénégal moom xawma lu ñu bari lewul waaye duy pexe ki lay réew moo xam ne lay pexe njuuj njaaj lay pexe njuuj njaaj lay pexe njuuj njaaj mu doonoon seen xibaaru bës dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz.